bisimila mbokk yi lamlaame bi ñuy lamlaame li waral feebar bii di jàpp nappkat yi moom la yéenekaay yu bëri xëyee tey doore koog yéenekaay bii di l'enquête bi naan feebar bii nga xamante ne moom mooy jàpp nappkat yi dafa doy waar lool te moo ngi teg njàqare jamono ji askan wi ba waral mu bind ci xëtam bu njëkk la maladie mystérieuse critique et inquiétante waaw yéenekaay bii di l'enquête nee na ginnaaw caaxo yi Saint-Louis jamono ji lu toll ak ñaari téeméer ak fukk juróomi kaa lañ gis fële ca Mbuur Ndaayaan ak ca Joal muy naan nag lépp li nga xamante ne moom moo di ñi seen xam màcc ci wàllu wér-gu-yaram di joxe maanaam dermatologue yi ñoom xamle nañ ne daal feebar bi nduru naag loolu lu ñeel ay kas-kas kosta kosta ay waga ak yeneen yi nga xamante ne mënuñu koo lim yéene kaa bi naan waaw donte ne sax ñu bëri dañ doon laale naan ab virus la mais jëwriñ ji ñi dénk yaram na ne dara amu ci mo waral ka bi immeuble la piste du virus et écartée. moy jamono ji képp ko doon lam lamé nan mbir mi ab virus laam dé bu yabo nga sa xel du virus Mo waral journal bi jamono ji institut pasteur jël na lu ko fukki échantillon ngir ñu waral ndax am déet waa institut pasteur yamuñu foofu dañoo jël ak yëf yi bëri yu nekk ci géej gi ngir fas yéene leen saytu xool ana fan la feebar bi jógee yéeni bi di l'enquête del soit ci jëwriñ gi gàllo wàllu wér gi yaram Abdoulaye Diouf saar moom nee na jamono ji tooke rek moom moo war a mun indi feebar bu mel nii ba waral journal bii di laas moom it xëy ci addu ci xëta bu njëkk naan les thèses virales contagieuses et covid ndaxte jamono ji ñi bëri nag lu ñuy laam-laamee ki di ko ruumandaat ci suuf mooy que ne feebar bi boo moyut ab virus la donte ne sax ñenn ñi nee nañ dara laalew ci l'observateur ne dina àddukat ci mbir mi xew jamono ji ci biir réew mi muy ab feebar waaye tamit dina àddu ci li nga xamante ne moom moo di étudiant sénégalais yi nekk fële ca xuwaan ca Chine ginnaaw fukk ak ñaari weer bi génnee foofu ca Chine ba léegi ndong yooyu ñoo ngi tëju ci seeni appartement génn ñu defuñu dara lepp li nga xamantene dañ ko soxla sax dañuy ñaan ab kayit ngir mun def loolee yéene kay soleil national moom dellusiwaat ci projet immobilier Dakar First wala ñeneen ñaan ko Pékin sénégalais buñuy ñuy amal fële ca Diamniadio té jamono ji sax door nañ liggéey bi bëgg-bëgg projet boobu moy tabax lu tollok juroom benn fukk ak juroom ñaari villa ak juróomi tour yo xamantene ne ni day am fanweeri étage ci diru ñaar fukk ak ñaari wër waaw waaw loolu de mooy lu projet bi ëmb Walf Quotidien xey ubi xet bu yaa ci walu politique mom mu def xayma bu ngande ci li nga xamantene mom modi gafaga président assemblée nationale bu conseil économique social et environnemental ak au conseil des collectivités territoriales mu teñké ci loolu yépp nak naan président Macky Sall ah mbiri serna na de ndaxte buñu xolé ci atub 2021 bi ñuy dugg Moustapha Niass Idrissa Seck Aminata Mbengue Ndiaye ñoom ñëpp seen gafaga war na mun a toll ci fanweer ak ñeent milliards ci suñu koppar waaw waaw muy lu rëy sax muy koppar gu takku ah war na ñoo jàppale de yéenekaay bi naan boo ci jëlee Idrissa Seck moom rek mi nga xamantene ni ki lañ ko doon installé ci bopp conseil économique social et environnemental moom rek kenn xamul sax la moo tax mu dugg ci gouvernement ndaxte journal bii di laas moom xëy na àddu ci naan Idrissa Seck démb sax wax na lu tax mu lëkkaloo président Macky Sall mais dafa mel ni daal wax yooyu mu fa wax doyul kenn laa la wax sax man yéenekaay bi nee na waaw ndaxte Idi dafa mel ni ku doon sëmb ne sax Sud Quotidien naan ko yow xaaral ma ñëw Idrissa Seck mi nga xamantene ne moom jamono ji dafa mel ni ku doon gént waaye dafa mel ni yi dàq na ba tey ci biir bi di Sud Quotidien Idrissa Seck moo ngi expliqué li waral mu jël décision bi ni mel di xamle rek nan mom mbir rek la ci dara yalla dogal mom mu ca ah yaakaar ne de lolou lañuy wax nan ponkalum jëm bu ñuy joxoñ weer wi ko mu bañ ko gis fi juromi at du ko gis Idrissa Seck ci journal bi ba sax néna na askan wi rek moko taxaju motax mom ak Macky Sall jamono ji sax programme 2035 bi ba ñepp la wax ñu gis ci seen bopp ah dina nekk lu jafe de waaye Idrissa Seck yamul foofu sax dem na ba nee ne moom ak Macky Sall comme mbur ak soow waaw kenn mënul dem ba keneen ki nag loolu nag nit ñi muñ see jàngee lu bëri moo waral yéene kaa bi naan idil politique qui vient de se commencer mooy que ne njoxtu yi ni ñuy lamlaamee ci diggante Macky Sall ak Idrissa Seck jeexagul de ci ndorteel bi rek sax lañ nekk ci lu ñeel kër gii di conseil économique social environnemental nu mu demee woon Aminata Touré nu mu ko yoree woon Idrissa Seck nee na ci biir Vox Populi dara yitteelu ko ci xool anam yi ko Mimi Touré yoree woon lenn moo ko ñor mooy xool ana naka lay gën a kër gi taxaw ci jafe-jafe askan wi ba tax na kii di Mimi Touré accélérer la cadence di tontu ci biir yéene yéenekaay bi ba tey naan Idrissa Seck dafa mel ni moom jamono def ko raw a raw a raw a raw ba xamatul sax fan taxaw ndaxte jamono ji lépp dañ koo dugal ci xarale yi yees yi ute naag lool jamono yu muy nekk ci nguur gi te boobaak léegi war na def fukk ak juróom-ñaari at dafa mel ni ci maamaati maam yi la bokkoon ci wàllu tàggat yaram yéenekaay bi di Stades nee na Sadio Mané moom rek mu ñu sukkandikoo ci moom mun a jël lu bëri lu ci mel ni ay coupe d'Afrique wala coupe du monde ah mun na nekk de coupe du monde moom dépassé na El Hadj Diouf jamono ji moo ngi ci tànk Didier Drogba ak Samuel Eto'o yéen kaay tàggat yaram bii di record moom dafa dëkk microm attaquant bi di Opanguet moom mooy xamle ne Sénégal jamono ji mun na jël lu bëri rawatina sax coupe du monde CAN Cameroun bi ci basketball sénégalais bii di Amadou Gallo mi nga xamante ne moom mooy jiite basketball Africa League xamle na ni changement yu bëri am na ci compétition bi ñi xamante dañ koo jàppal yi ñi jàppoon première saison bi ci premier semestre 2021 bi ñu jëm yéenekaay yi jaa ngeen jëf